ci diggante rëg-rëg ak Sa Thiès am na coow fi mu toll ca Sa Thiès moo ni kon am na ndam ci kaw rëg-rëg ndax def na quatre appui arbitre bi moom rëg-rëg la ca jox ndam dinañ ca fekki Malick Thiandoum ci njàlbeenu xibaar yi quartier Pikine euh, ba ca Saint-Louis juróom-benni camion frigo ñoo fa tàkk ba defub doom seede yu njëkk ne ay taalibe ñoo ko taal fekk boobu commune bu Ngoye ga ca Diourbel fukk ak juróom-benni kër tàkk fa ba jeex gerte gàkk dugub jàkk charrette ya lépp a dem fédération nationale bi ëmb jigéen ñi bokk ci PDS di parti démocratique sénégalais ne tey jii lañ gën a dogu ne Aminata Touré bokkul ci ku jéggi moom mi mi itam li mu wax ni waa PDS dañuy lëkkaloo ak président Macky Sall di di la ñu ne loolee ay sos la sport weekend ak Pape Malick mooy bural xibaar yi guddi gi ñu ñaanalante Matar Samb moo nekk ci machine bi. Serigne Saliou Seck. ci kàddu gi mbokk yi am mbégte ak contentement bu mag toog ci studio RFM di leen jottali xibaar yi guddi gi nañ leen ko xëcc bopp ba rek la ñuy duggee génn ci yaatal ji utali arène nationale fekki fa Malick Thiandou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Serigne Saliou. Ah, mu mel ni làmb ji dox ci diggante rëg-rëg ak Sa jeex na rëg-rëg la jox ndam waaye am na coow. waaw coow li bëri na lool li ko waral nag moo di ni ah, ci première action bi nga xam ne moom la rëg-rëg daw song Sa jël ko Sa Thiès da ko suru xol mu def quatre appuis malheureusement loolu arbitre yi dafa échappé à leur vigilance. sifflé wuñu mais Sa Thiès dafa daw mel ni moom mooy arbitré boppam jàpp ni moom moo am ndam arbitre yi wowaat leen biñ leen oowaatee maintenant Sa dafa mel ni ku yàkkam ci bëgg a factoriser combat bi ci moment boobu la ko Reug Reug jàpp daan ko ñu jox Reug Reug victoire mais ce qui est sûr et certain mooy ci écran géant bi ci ralenti yi li ñu ci gis ala kulli àll dafa mel ni que kii di Reug Reug def na kaat appui te loolu am na coow lu bëri lu mu indi li mu indi nag euh, sëñ Saliou mooy lan moo di nit ñu bëri dañu wax lu tax làmb mënuñu ci utiliser VAR mu nekk question bu nga xam ne li tontu bi yomb na li tax mënaguñ ci utiliser VAR moo di ne règlement bu amee ça doit être ci territoire bi yépp mais tey bu làmb amee sama dëkk ba ngaay mexe te filmé wuñu ko wala defuñu ko en direct boo bëggee atte mbër yi ci litige doo ko mën mais li nga xam ne tey man moom laa xalaat ni moom la ñu war a def moo di combat yu mag yi combat vedette yi combat phare yi combat yi am pression am tension mën nañu exiger l'utilisation du VAR pour mën a séparer ñaari mbër yi mais tey coow li bëri na mais ce qui dans sur la première action. Mhm. Reug Reug def na quatre appui sur la deuxième action Reug Reug moo daan. coow li amoon ci ci biir stade bi ak supporters yi doon kii ndax dal am na ci. waaw fi mu ne dal na nit ñi ñibbi nañu mais tey boo xoolee stade bi euh, spectacle bi c'est désolant parce que chaise yu bëri rekki nañ leen sànni nañ leen. malheureusement liñ doon waxal waa axlu làmb mooy ab dër la ñu mérité kon dafa mel ni loolu mi ngi bëgg doon dëgg ndax chaise ñu dagg sànni ko du dëgg du yoon. jaajëf euh, Malick Thiandoum doon jokkoo ñu naan direct ca arène nationale ngeen di wéy di déglu xibaar yi guddi gi ci rajo Futurs Médias juróom-ñeenti waxtu moo jot ba tegal ñetti simili. rajo askan wi Pikine di quartier bu nekk ca diwaanu Saint-Louis di Ndar Géej la ñuy utali foofee moom juróom-benni camion frigo ñoo tàkk ba defu po doom ñi nga xam si nag ñoo fa njëkk nay seede dañoo wax ni ay taalibe yu doon taal ca wet ga ñoo daal di sooke gi lekk daay Ousseynou Diop. lakk bu metti moo am ci quartier bi nga xamante ni mooy quartier Pikine benn garage yu réparateur camion frigorifique moo day tàkk nag li nga xamante ni mooy quartier bu ni mel Ismaïla Diallo di mécanicien ci garage bi jàpp ni ay taalibe ñoo ko taal. d'après li ñu a wax daal dafa am ne ay boo xam ne loolu même incendie bi loolu moo ñu koy yëbal ci kàddu Ismaïla Diallo la fa lakk ci camion bari na lool te xaalis bi bu fekkee ni dañ koy xayma kenn mënu ko ko def jamono jilee fi yàqagum. nañ fi xayma parce que am na ay yi ngeen gis ñu tàkk yëpp ay oto yu complet bees daanaka ñun paax noonu di woon dara ay réparation lañ fi ñëwoon ñun ñëpp. préfet bu département bu moo du Ndiaye ñëwoon ci bërëb bi jàpp lii kenn du ko bàyyi mu sedd ndaxte itam daañ ci def la ca war mu jàpp ne sax enquête bi tàmbayi nañ ko ngir mën a xam mbir mi fan la jóg. am na ay dégâts matériels nag waaye alhamdulilah kenn amul benn doomu aadama bu ci ñàkk bakkanam euh, la situation il faut que ñu xaar ba rapport sapeur ak euh, police disponible pour que ñu mën a am une idée claire. enquête bi ñu koy wéyal ngir mën a xam bu baax a baax mbir yi lan moo ko gën a waral waaye ñi nga xamante nag ñu nekk ci bërëb bi nee nañu ñoom ay taalibe ñu waral lu ni mel Ousseynou Diop Saint-Louis RFM Ousseynou Diop commune bu Ngoye ga ca Diourbel yi tam lakk gu méttee la ñu xëyee subaak tey dëkk bi ñu duppee njom xel foofee nag kon lu gàtt gàtt fukk ak juróom kër ñoo fa tàkk ba jeex lu fa nekkoon ca dugub gerte ba ci sareet ya euh, daal dinay tàkk fi mu toll nii nag euh, ña nga xam si ñoo fa yeewoo amul kenn ca nit ya ku fa jëlee ay gaañu gaañu waaye nag tumranke la ñu def di tàllal loxo tamit ñi nga xam si ñoo di kilifa yi ñu gaaw wàllu leen njoogu gëy mooy euh, kenn la kon ci ñi nga xam si lakk leen nañ ca ñu teewlu kook Alimatu Saar fukki néeg ak juróom ay ay armoire ak ak bagage yu bari daal dugub yu bari ak gerte yu bari lakk na ci biir loolu daal moom moo fi am dara li ma ci man a wax daal mooy dara desu déedéet kenn gaañuwul ngooñ mu bari ak dugub yu bari ak gerte yu bari daal lakk na fi bari bari bari bari ci Ndakaaru la ci guddi gi lañ ñëw mhm. ñu dekkoon yaa xam naa booru ba booru yooyu daal dañuy jékki-jékki daal gis benn néeg bu bu sawara bi yëkkati ko foofu te boobu dafa rek mboyo mu métti moo fi nekk daanaka bi mu jógee rek kenn mënatu koo jël loolu moo tax mu garaaw yi gala bi ko da ko tourné fu ne mu jëm fu ne kenn mënatu fi jege dund ak ak ak dëkkuwaay mooy moo suñu problème moom ak machine yu bari fi nag ak saret yi yére moom dara génnewut dara dara ci yére moom benn morceau laa génnewut armoire ci armoire bi lañ nekkoon yooyu moom dara génnu ci baykat yi at mu yàlla sàkk dañuy eh, yàqule lu baree bari ci li nu jiwoon li koy sabab nag moo di ne eh, dañ dul fu ñu ko denc loole waral ba lu bari di ca nëpp noonu nag moo tax ba waa DER eh, taxaw tem ngir tabax ab hangar boo xam ne si juróom-benni juróomi junni mètre carré lay daal di doon nara kon nekk ci wàllu koppar ñetti milliards ci xaalisu CFA tey jii kon lañ ko daal di xamle. ca diwaanu euh, Sédhiou Bakary Konté. pour nag xeex lëpp loo xamante ne nekk na ay perte post récolte loolu moo waral DER dina dina tabax benn hangar de stockage pour producteurs ak transformateurs yi nekk fii ci diwaanu Sédhiou docteur maam Abissé délégué général de la DER. infrastructure bi nag mi ngi ci 5000 mètres carrés boo xamante ni mairie bi daf ko mettre à la disposition tey jii pour ñu tabax fi loo xamante ni 1500 mètres carrés boo xamante ni euh, stockage bi lañ fay def ak euh, li ci wax yëpp mooy li ci war a li mu war a àndal yëpp de séchage aire de repos ak côté administratif beeg yëpp tey jii ñu ngi ciy liggéey ñu ngi doon def tey jii pose première pierre bi waaye di wax ni que liggéey bi mun nañu wax sax ni de euh, daanaka door na euh, dina travaux yi nag dinañ dinañ durer huit mois pour mu noppal jàppale ñi nga xamante ne ñi ngi liggéey ci anacarde bi ci darkasa bi ñi nga xamante ne ñi ngi liggéey ci mango bi ak yeneen produit tey jii yàq dootul amati ndax dootuñu bàyyeeti yëpp di di di di di di ñor di yàqu ci tali bi wala di yàqu ci àll bi ndaw yi ñëw ñoom nag am nañu ay financement yi bëri 3 milliards lañ daal di dugal fii. di wax ni que tey jii tamit boo xoolee DER ñu ngi wax ni que ci région Sédhiou bi globalement nee nañu satisfaire nañu maanaam répondre nañ ci demande bi ci 50 pour cent maanaam fukki nit yu demande juróom yi jot nañu financement wala jot nañu euh, loxo deer waaye ñu wax ni loolu tamit bu ñu buggee ñu gën a jaxal suñu liggéey bu ñu buggee gën a yaatal géew bi il faut que remboursement yi tamit gën a dugg ah am nañ ci satisfaction ndax lu mel ni produit nano crédit yeeg yooyu ak micro crédit bi recouvrement yi mi ngi dugg waaye lu mu gën a dugg rek ñu bañ a yegg ci recouvrement rek. autorité administrative locale ak population yi rafetu lañu bu baax effort yoo xamante ne DER def na ko fii ci doon Sédhiou ñu bugg nag ñu daal di yokk enveloppe bi pour daal di gën a créer ay emploi wante tamit xeex lépp loo xamante ne nekk na immigration clandestine Bakary Konté Sédhiou. rajo Futurs Médias. jaajëf Bakary Konte lu aju kon ci njëgul luyaas bi ñu euh, wàññi loolu nag wóyeelug loi la boo xam si atum 2014 lañ ko euh, taxawaloon tax nag ki la di Momar Ndiaye jàppale ko ak lajjite moom mi la di ab urbaniste nekk tamit ingénieur bind livre bi la di. Euh,